loolu c'est entre Macky Sall ak ay ñoñam waaw mais dama ne par rapport ak événement yi est-ce que mm-hmm. loon ko pouvoir bi am benn lecture politique bu profonde bu mu def ci mbir mi parce que gis nañ ci mouvement bu bees bu juddu gis nañ ci ay opposants yoo xam ne daanaka demoon nañu tëddi ba pare ci wàllum politique mouvement moom ñu jugaat en am audace xam nga mouvement ku mu neex mouvement moom bari na man mi amoon am naa fi ñaari mouvement benn bi xam nga nutul benn bi defante jot na laa ko tudde yàlla non nongu ndogalu yàlla mouvement ku mu Sénégal léegi da ngay defar say mouvement rek trois cent partis ngi fi. mille mouvement ngi fi mais M2D bokk na ci. dara ah. non non loo xam ni xam nga ak M2D ak M23 laa ci wane ak loo man def rek del xalaat réew mi del xalaat nan yàq yi nan mobiliser ji mu wóor leen da ngay woote pour yàq la pour inciter ay citoyens ay honnête citoyen wala ay ignorant yu xamul dara ci la xew na leen di jéem a na leen di jéem a incité pour ñu dem mobilisation xam nga fu ñu ko dégg mooy nan les profiteurs dañ ciy profité di yàq ay genre dëgg nañ daal résistance ah, mais la ay résistance ay yooyu loolu mooy loolu mooy profiteurs yi band yi nañ ci profité pour yàq nit ñi nan bëggante nañ xam ni fii yàllaa fi nekk nañ bëggante delloo suñu xel yi mënuñu fee wax wala ñu fi maguy ba président Macky Sall jóge fi ci yàlla jëlewu ko fi wala hmm. peuple bi jëlee ko fi peuple bi ñooy fal. d' accord ñoom nee nañu Macky Sall déjà na. voilà voilà bala ngay agsi foofu hmm. pardon parce que yaa ngi may jaxase bala ñuy agsi foofu dama la bëgg a xamal benn affaire euh, Kandé hmm. heureusement que réew mi am ay sëriñ su baax. am ay xalif généraux yoo xam ni. non da ngay anticiper oh, oh, mais mais yooyu yëpp dinañ ci non non non non pardon. anticiper wu ma lépp ci la bokk. <laughs> ok allez-y. lépp ci la bokk. Mm. bàyyil fu nu bëggee waxee dëgg nga bëgg yow dafa mel ni da ngaa jubóog Sonko léegi wala nga yëg <laughs> déglu ma wax la rek voilà. Ah, non oh, déglu rek ma wax la <laughs> bul bul bul couper sama. non non man nit rek laa. débat dañ koy organiser pardon man du ma journaliste. dañuy jóge ci point mais li may wax nii li may wax nii ci point boobu la bokk bi nu bi nu paase la bokk. ayca kon wax wax ci kon. Mm. ñun dañoo am ay sëriñ su baax yu fi nekk yu tedd ñii doon sëñ Touba ñii doon Maam Alaaji Malick ñii doon euh, waa Ndiassane ñii doon waa Ñaseen ñii doon waa Laayeen yi et tout ça. Mm-hmm. ñu nekk fi ñoom ñëpp it yàlla dimbali na Macky Sall ba ñoom ñëpp nekk nañu en bon terme avec le président parce que président daf leen a jox respect gëm leen def leen kilifa mu am ci seeni mbokk yoo xam ni aussi ñu baax la parce njaboot njaboot rek la mën a doon ah. njabootu sëriñ seeg sunu njaboot yee yem. Ah, kër goo dugg am na maram baraan. Mhm. kër goo dugg am na maram baraan mais ci sëriñ si su ndaw si surtout da cee am ñoo xam ne ay wurekat lañu dañuy wure rek kart ci sëriñ si waaw dañuy wure ay wurekat lañu. ci sëriñ si ndaw si. su ndaw si fi am ñoo xam ne ay wurekat lañu lu nu warul a dugg la ñuy dugg tey saa ñu dem ca daara ja wala ñu dem ca tool ya bay wala ñu truc fi la ñuy dugg parce que tey diw xew na nan dem ci moom jege ko pour ëllëg ak si biir ay carte kat da cee bari ni mu bari ay carte kat baree ci ñun ñii baree ko ci citoyens yi parce que ay nit lañu nit nag day gëm yàlla nit day gëm yàlla man yàlla laa gëm yonent bi laa gëm samay waajur laa gëm mm-hmm. gëm sëriñ su baax su fi nekk nag am na sëriñ yoo xam nag su may sooy wure sooy wure man du ma dugg si sa wure ay taxaw Macky Sall ku ko mën a menacer. ah mais nee nañu Macky Sall du dégg lu waxu Serigne Sy ah. loolu c'est pas vrai. xam nga xam nga loolu c'est ku ko wax. nee nañu Macky Serigne Sy dañuy wax moom xam nga ku ko wax ku ko wax. Ah, ci bu ñu génn léegi am na. dégg naa ne xalif général des Mourides Serigne Mountakha wax na ne xam nga xalif général des Mourides nan bàyyi di ko nan bàyyi nan bàyyi di ko waxal lu mu waxul te soo bëggee barke na nga bàyyi di nettali kii waxi nit ñi waxi waxi nit ñi waxi mbedd yi xalif hmm. général des Mourides Euh, nit ku responsable la nit ku baax la dégg naa rek bu mu tax man nga ni dégg naa ci ay autorité ay politique yooyu ay politiciens ah. mais dégg naa ci nit ñu baaxee noonu ay wàllu yu baaxe noonu bàyyil di ci wax dégg naa mm-hmm. parce que ñooñu ay nit ñu baax lañu. moom mais dama ko dégg. wa di wax ci audio ne xalif bi wax na ci problème bi. da nga dégg ñuy wax na mais yow déggoo xalif bi wax. xam nga non pardon. déggoo porte parole non déggoo déggoo porte parole am wax déggoo rakkam wax da nga dégg rek. yàqkat yi ak di changer ak di démonter ay audio jaamur di wax loolu laa bëgg nga moytu ko parce que moi je t'aime bien. bëgguma nga al sànku wala nga alku ci ay wax yoo xam ne dégg nga maam. waaw voilà subhanallah moo tax bul dugg ci wax yooyu. <laughs> fii non man damay nettali rek dama ne. non bàyyi xam nga nit ku baax. nit ku baax ak loo nekk nekk journaliste. Mm. nit ku baax du net du nettali n'importe quoi. c'est nit ku baax du loo dégg nettali ko parce que xamoo ndax li nga dégg dëgg la wala du déet. c'est kon nit ku baax day maandu te ñii am na ci ay sëriñ soo xam ne dégg nga ay wurekat lañu parce que tey ku fi mën a menacer président Macky Sall ay ko suñu jàppee kii dinaa ma ma taxaw ak suñu tëjee kii ma taxaw di menacer réew mi di menacer autorité yi. mais Khalifa Niass moo ko moom du moom rek am na ñeneen. mais moo ko mujjee même su ko mujjee wax xam nga ni loolu mënul nekk dafa dafa moom Macky Sall dafa moom moom Macky nee na ku jàpp xalif euh, Ousmane Sonko mu moo jàmm kooku am na ñu ko waxoon ci Khalifa Sall am na ñu ko waxoon ci Karim Wade. ñu ko gën a danse fukki yoon ak juróom yenn yi gis nga fii kenn mënu fee tiital kenn kenn mënu fee euh, lëre kenn ñun ñëpp dañoo amee mbokk amee maam yi sëriñ sëriñ sii di suñuy maam sant santu mu sant bañ a santuma Mbàkke mais gënul maa bokk ak sëriñ Tuubaa uh-huh. santuma sii gënul maa bokk ak Maam Malik mm-hmm. Sénégal ñëpp ay mbokk lañu ay liens yi dafa bari am na nag rek mais parce que c'est pas parce que da ngay amee sant bi que loo neex wax wala ngay jéem a tiital un président de la république wala yooyu Macky Sall dépassé na loolu Macky Sall yàllaa ko fi teg yàllaa koy jàppale sëriñ sang koy jàppale ah. les les vrais marabout ñu ngi koy jàppale mais kenn du ko jàppale ci mën menace loolu loolu dëgg la loolu hmm? nga wax noonu dëgg la kenn mënu ko kenn mënu ko dindi waaye est-ce que président de la république tamit mënuñu ko natt mënuñu xayma taxawaayam wala tolluwaayam ci am réew ci ci contexte yu mel nii parce que bu demee ba ñi nga xam ne ñoo la gën a jege